mooy ñëw naa sëriñ bi ci sa kanam ngir santaat la gërëmaat la ci sa jàppale boo xam ni man de xam naa ko ndax lu wér la loo wane la waaye it lu ma gis la ñëw naa itam feddali la sama taalibe gën la joxaat suñu bopp gën a wone kóolute gi ñu am ci yow ndax xam sa yërmande ak sa ñeemtal ci man te it ne woon nga moom bul am benn jaaxle bul am benn jaaxle ndax lii nga ma wax ci yitte de kii nga xam ne moom lay liggéeyal muy sëñ Tuuba ci dëkkam bu tedd bii moom lay dënk say mbir kon nag ñëw naa sant la waaye santati sëriñ bi santale la it sëriñ bi ndax la nga waxoon gis naa ko te yàlla may na ma ci ndam loo xam ne coow amu ci weddi amu ci te it li ëpp ci réew mi seen taxawaay Euh, féddali na kóolute googule moo tax war nañu ñëw it santale la Sëriñ Tuuba bokk na ci li gën a tax ma teew fi tey ginnaaw bu ndam li amee terewul dama woote woo jàmm ci réew mi woote it waxtaan réew dañ koy waxtaane mënoon naa yem ci ndam li eh, doxal samay xalaatu bopp ak doxal programme bi tax réew mi delloo ma ko ak kàddo waaye waxtaan woote boobu itam ñu sant ci suñu borom bu baax ndax wuyu si nañ ñu rawatina këru diine yi ak sax kujjee politique bi yàlla def na tànn na koo xam ne ci réew mi it am nañu yaakaar si taxawaayam muy président Famara Ibrahima Sagna mooy doxal waxtaan wi te waxtaan wi dara taxu ko jóg lu dul lépp lu gën a mën a defar Sénégal te ñu war ko mën a waxtaanee ba déggoo si te lépp luñ si déggoo bi ànd si dana jëfee loolu ngir njëriñal Sénégal loolu mooy waxu débat bi nga xam ne jaloog euh, national ñu ngi koy tudd te ñu fas yéene gën a defaraat rek taxawaay yi gën a defar liggéey bi gën a defar démocratie bi waaye gën a it sàmm kaaraange réew mi ndax kaaraange réew mi donc war nañ ci bàyyi xel te di leen ñaan ngeen ñu ci defal ay dog te xam ni li wër senegal tey lépp doy na waar te liy yàq ba ci diine ji bare na kon dafa am taxawaay bu mu laaj ci këru diine yi waaye aussi ci état bi loolu maa ngi lay xamal ni daal lépp lu ci war état bi moom dana ci taxaw taxawaay yi war ndax li jiitu ci suñu liggéey mooy yor kaaraange gu doy ci réew mi aar réew mi aar doomu réew mi ci jàmm ak salaam am nañ yaakaar ne lépp lu ci sa yitte ci fànn boobu danañ ci taxaw bu baax a baax li ci des itam maa ngi lay feddali lii ma fi waxoon bi ma fi ñëwee ci élection bi lépp lu Touba aajowoo ci liggéey dara duñu ko ci wàññi ci li ñu tàmbali woon kon maa ngi ñaan nga ñaanal ma mandat bu bees bii may tàmbali ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk mandat boo xam ne mën nañ ci liggéey lu ëpp la defoon ci bi weesu su boobaa lépp lu war si jàppale la sa liggéey bi incha fas yéene na continuer di ko doxal dama ko doon defe di ko féddali njaboot gi yëpp di nuyu njaboot gi fi teew yëpp di leen sant yàlla boole na ma si ak ñu bare bare kon maa ngi leen di nuyu waaye bu ñu la nuyoo ziyaara la rek ziyaara boobu yegg seen na si ñëpp maa ngi santati bu baax a baax di la gërëm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 ndax li ci weesu woon moom do ñaan doyuma ci. maa ngi door a nag nangoo ñaan. maa ngi door nag nangoo ñaan. président Macky. yow président Macky. maa ngi ñaan. maa ngi ñaan suñu boroom. ñuy def di dindi. ci barkib sëriñ bi. mu may la jàmm. maa ngi ñaan. sunu boroom. ñuy def ak dindi. ci barkib sëriñ bi. mu def jàmm ci réew maa ngi ñaan sunu boroom mii dafa ko dindi ci barkeb sëriñ bi mu may waa réew mi jàmm mu may waa réew mi jàmm loolu mooy samay ñaan am na loo xam yitte ju rëy ju fi fekk moom président am na nag ju ju mu fi fekk moom président yitte ji du dara lu bëgg rek ñu gën a warmaal Serigne Touba ci dëkkam bii. yitte ji mooy bëgg rek ñu gën a warmaal Serigne Touba ci dëkkam bii. Serigne Touba ngi fi. ñu warmal ko dëkk baa ngi fi muy dëkk boo xam ne bu ñu xamee lu mu bëgg dara ci àdduna kanaa kon dëkkam bi képp lay doon te fàggu na fi lépp lim fi def fi def am na fi bu doon am na fi coono yu rëy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 loo ci man ci jàppale ñu ci dëkk bi am worma wormaal ki fi nekk wormaal dëkk bi ci lépp lu ko fi neexul loolu loo ñuy dimbalee yi lañ ci mënta ñàkk kon noonu yi la demee yitte fekk nag yitte ji nga fi fekk nag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 ni euh, ginnaaw Cheikh Bass ko doon bëgg ñëw ci yow. gannaaw Cheikh Bass dama ko doon bëgg a ni mu ñëw ci yow. tawfeex ji am ci nga fa ñëwal sa bopp. tawfeex ji am ci nga ñëwal sa bopp. ni ko waxee ñëw di ma santale. ñëw di ma ni ko waxee ñëw di ma santale. kon Cheikh Bass kaddu gaangoo kon waxal ak président. it ji mu fi fekk. ak li ci bëgg. ci bëgg.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 sëriñ Touba jot li ñu ko muy yii mooy bëgg lim ak yëpp yu ni mel ak yu ni demee loola nag moo di jëfandikoo am ñolo ak dorog ak umpon ak seeni xet ak di ko fi jaay ak mboolem xeete carte yëpp te lislaam tere ko sëriñ bi nga koy tere ci dëkk bi mboolem lu nur ak am tëgg ak lu nur am pecc ak seeni jumtuwaay ak ñi ñuy àndal ak mboolem lu nuru ay way